ñoo ngi ndokkel suñu bopp ndokkel mbokk jullit yëpp rawatina waa daara yi góor ak jigéen di ñaan ci mbaaxu yàlla ak suturaam yàlla na yàlla may wér man mooy jiir ci samay ñaan wér ci jiitu yàlla yàlla may wér may ko mboolem soppee daara góor ak jigéen yàlla dimbali ñu nangoo ñu suñu gàmm lépp lu gàmmo jëriñ ab jullit yàlla na ko yàlla jëriñ njëriñi gàmmo bari na waaye ba ca gën a feeñ gën caa màgg mooy bëgg yonent bi sallallahu alayhi te bëgg yonent bi mi ngi feeñe ci roy ko ay sunnaam ay ay waxam lépp looy wax nga wéer ko ci ni ko yonent bi doon defee loolu mooy moo gën a am njëriñ ci gàmmo bu amul ci gàmmo sax gàmmo amut xattali ko yonent bi ak i jikkoom yu rafet tolérance bi ko yàlla mayoon fu ne mu am fa ab noon te noonu yàqu yàqaluñ ko jaamu yàlla yàqaluñ ko yor këram ak i njabootam am ak jàmm ñëpp ba yàlla di yàlla ko may ndam benn par benn ba mu agsi fi ba diine diine ji nooy ñu jot ci noonu di ko jëriñoo nii kooku mooy sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam man ngaa wax ne yaa yaa fa sutoon boo ko sañee wax ndax juróom-benn fukki at ak ñett la dund ci kaw suuf ak lim ci liggéey nag ni mu toll te am na ñeen fukki at ñu door koo yónni man ngaa wax ne kon moom nopp noppalu wut am fukki at Makka di oote noon yi song ko kaw ak suuf guddi bëccëg suba ngoon fu nekk noon yi song ko di ko mankil di ko tumurankeel moo ki njabootam mu muñ ko jox jox yàlla boppam ba yàlla may ko ndam yi ko may par benn ba ci bi ci gën a màgg mooy Fatxul Makka yàlla jox ko ndam ku ku mu ragaloon rek mujj na mooy sa kilifa saaba yi ku ñu ragaloon rek jaar ci kawam jàll ndax ñoo ëpp doole dañoo ànd ak yàlla moo tax te ànd gi ànd ak yàlla delluwuñ ci gannaaw kenn ku ci nekk bëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam bëggal ko ndam gënal la sa bakkan bi gënal la sa alal gënal sa sa njaboot gi moo tax lépp lu nit di bëgg te mënu caa dépassé àllam ak njabootam bëgg googa des na te pourtant yàlla daf ñoo wax ne qul in kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni su ngeen ko defee rek yuhbibkumullahu kuy wax ne bëgg naa yàlla te bëgg yàlla amee la cofeel jox la ko bëggal Seydina Muhammad ci ay waxam ak i jëfam di ko coroy ku la raw ci diine ji bëgg yonent bi dala rawe ndax bëgg ko li koy li koy seede mooy da nga koy roy te loolu la yàlla sant kooku nag nga xam ne juróom-benn fukki at ñett la dund ci kaw suuf liggéey fi li fi liggéey ba àdduna tukki àdduna bi di ko jëriñoo te mënuñ koo jeexal kooku jar naa tàntal jar naa dajale ay mbooloo di waxtaane ay jikkoom te waxtaan ak amul amul njariñ lu dul gëm ko di ko jëfandikoo mag ñi yàlla baaxe ñu saxal fi gàmmo loolu lañ doon dàkk at mu ne ñu tant ab tant oo ay jullit di leen nettali ci di ko yonent bi mënuñoo xëy takk yëpp waaye boo yàggee déglu gàmmo te ñi gàmmo xam ni ñuy gàmmo bu yàggee danga am lu bari loo xam ne xam ko yonent bi te loolu moo lay sawarloo nga mën ko roy moo tax maa ngi dégg fan yii yëpp ngeen di ko wax ci saawiya bi am alaaji Maalik wax ko alaysa nafhun ala xubbin bila amalin fa taabihun sunnatal muxtaari tax tani maa bëgg maa bëgg te li nga bëgg royoo ko amul firnde bu wér mbëggal gi ne lii firnde ne kii ku bëgg yonent bi la ku bëgg lislaam la mooy mooy li yonent doon digle mu def ca lam man li mu doon tere mu daw ca lamman te sax ca nag bañ a dellu gannaaw ndax jaamu yàlla la te jaamu yàlla amul amul jeex amul noppi yàlla wax na jullit ñëpp jaarale ko ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam mel ni moom la doon waxal moom kese te fekk jullit ñëpp lay waxal mooy wax abu waabud rabbaka hatta yatiyaka alyaqin saxal di muñ lu metti metti muñal jaamu yàlla ba ba dee dikka la alyaqinu xiyal mawtu fii ci àdduna mënoo fi am yaqin total lu dee dafa ñëw soo nekkee ci li yàlla bëgg nag guddi bëccëg suba ak ngoon lu ci orienté sa sa njaboot boo dee rek wàcc ku dee rek soo soo sos jeex na yal na yàlla yeexal dee ci nun ñu ànd ak wér nag moo tax ñu ngi leen di ndokkeel di ñaan yàlla yal na nu yàlla may barki guddi gi fu ko mën a màggale ko mën a tàntal di di màggal yal na yàlla nangul la waaye yàlla bu ci kenn ëppale waa daara ji buñu ñu mbooloo amuñu doole joo xam ne ji doole ju ñuy wax la nañ am yàlla te mooy looy def def ko te yàlla tax ndaxte kat kam min fi'atin qalilatin qalabat fi'atan kasiratan bi isnillah bari na as as as mbooloo su niiw yàlla dimbale leen seen pas seen dogu ñu gañe mbooloo mu bari bu ñu ko waxee ku jàng saxel a daj badar uh, badar ñaata junni noonu ñoo fa ñoo fa ñoo fa bëgg alak yonent ak saabaam yi ci kattanu yàlla ak ndimbalam ñoom ñu ñetti téeméeri nit ak fukk ñett gañee nangami junni doo leen dàq leen ti loo leen am na am na lu nekk ci biir mooy force bi ñu àndal ñoom ci bëgg yàlla ak yonentam ak ndimbal bi yàlla dimbale ak muñ gi ñii muñ metti métti ñii di daanu seen bakkan doro ñii seen dara di tuuru metti na waaye ñu sax rek ku ci masaan di xëy jëm ci wàllu toolu xare ba booy góor da ngay tàggu say soxna ne leen maa ngi dem su ngeen ma gisaatee alhamdulilah su ngeen ma gisaatul firiku leen te tenji xam kooku boo boo xel fanaan këram ci loolu leen doon di yendu di ci fanaan loolu nag ku ci ku ci génn da nga naan yàlla mucc rek yow mucc xalaatu waaye lu suma xale ma saan xew coono yi bari bombarte yi bari amuñu fetal ki jaasi waaye ay xeej la ñu doon des lañ man yàlla roof ca kattan waaye teew dañ daan dama dem ba naan mata mata nasrullahi bu ko ab caameen wala am njaayeen waxuñu day caarik ndimbal bi ñu yàlla dig kañ la mata nasrullahi alquran tontu na alaa inna nasrallahi qaribun ndimbalal yàlla jege na ak seen ci yéen sax ba ndimbal la ñëwee kenn werante wu ko te daawuñu noppalu guddi ak bëccëg borom burdu bii ngeen di way Mamadou Boussiri wax na ko ci seeni coono ak seen seen muñ waaye teewul daanañ dem ba xaw a caale ndax saabo saaba boo ci bett ne ko weer yi fu mu toll tey ñaata fan la am te du ko xam mu ne tam di layaali wala yadruna hiddataha maa lam takun min layaalil asrul hurum ay bëccëg ak guddi yu bari daana romb ñoom duñ xam fu weeri toll xamoo ne xam xam tolluwaay weer ak jot la ak jot la de nit dana toll ci ay yitteeki xat-xat foo xam ne boo ko ne weer yi fu mu toll te du la ko wax rawatina ñu ci bàyyul xel tamdi layaali wala yadruna hiddataha maa lam takun min layaali al-ashhuril hurum ay guddi ak i bëccëg daana romb te saaba yi ko ci bett na ko weer weer ñaata fan la am te du la ko wax bu weeri bi nga xam ne dañ dañ cee ormal dañ koy wéer ngeen màgg màggaayu weer yooyu weer yooyu rek su ñëwee ñu xaw a noppalu xaw a féex seen seen xel di si ñoom ci la ñuy xam ne weer tey la nangam fan ci weer wi suba la nangami fan waaye daawuñu ko wax ma ay jamono ngir liñ liñ dëgmal nag mu leen gën a yitte wala fi ñuy séentu weer ak di takk na weer ñaata fan la am tey kon loolu bokk na ci li war a xam ci gàmmu waaye liñ ci war a sant yàlla itam nag bi ñu ci yàlla mayee tuuti luñ mën a bigalante ak ak suñu njaboot soo ko soo ci xamee tuuti benn benn jikko wala ñaari jikko di ko dund ren ba déwén bu dee ne nga amaat yeneen jikko yoo xam ne mooy loo si yoo si dolli bu yàggee yow yow personnel la nga mën a gàmmoo ndax la nga déggoon ci gàmmukat yi daaw daaw ak ren mën nga caa takk loo xam ne mën nga caa waxtaan ak ku moom bu la déglu day wax ne kii kii moo mën a gàmmoo kon gàmmoog ren gii nag yàlla bu ci gémmiñ dugg yàlla na yàlla fayal ñu kilifa yi nga xam ne ñoo teel a seen kàddu ne na kenn ku ne gàmmoo fa nga dëkk yërmande ju rëy la teraanga bu rëy la ci julli buñ ko xamee am na ñoo xam ne feeg taaluñ ay oto piip piip dem ci waawoon wala jëm feneen jàpp nañ ne gàmm woo waaye gàmm fi mu gën a amee njëriñ ci ab jullit mooy nga toog sa kër jàkkaarloo sa njaboot di fàttali ko axlaax Sayyidina mooy ay jikkoom di ci jiima loo loo loo man ànd ko sa njaboot mooy ngën ji gàmmo ndax gàmmo bu dul bu dul sunna it mën na ko tudde naafila ndoolantal yiw te naafila moom ci ci fafil bu yóoti afdalu da ngay gis ñoo xam ne dañuy gar dañuy forcer seen bopp bu ñu ne asalaamaaleykum gee ñu ne xale mukk bala ñëw génn danañ def safaak wiitar waaye naafila moom sa néeg la gënee fafil bu yóoti afdalu ndax fi ngay gën a libéré fi ngay gën a waxuma sax def ko def sa nekk waaye su mu jóg gu gi ci la gënee nelaw ba njël nga yeewu dem laab fay sa làmp nekk sa nekk yow dong yàlla rek di sa seede nga def rakka kay nga bëgg na def sikkar la nga bëgg a sikkar ci sa kurus kon na xam ne ne jëmee yàlla la moo tax fafil bu yóoti afdalu bu dee jigéen mii nga xam ne moom kenn desalu ko gannaaw te mosuñoo des gannaaw yàllaa leen jiital ndax lu fi baax jigéen am na ci cër am na ci wàll jigéen moom jaamu yàllam yëpp ci néegam la ñu ngi ci aaxiru samaan xëy na ooto tàkk yëngatu na toj ba jigéen ñi di kaala dem ci jàkka yaak jumaa waaye jigéen jaamu yàllaam yëpp yëpp yëpp mi ngi génne ci néegam moo tax nekkul farata ci jigéen mu julli ci jumaa tey soo ko waxee nag àdduna ngànk la ña la mbambu waaye jigéen solul dem ci jumaa ji jullee sa néeg tisbaar moo ëpp tuyaaba si yow jigéen yi loolu lu ma ta xam la ndax sart yi jigéen yi war a remplir door a mën a dem jumaa tudd am bakkaar moo jafe ndax jigéen feeg ànduñ ci mbedd di coowaloo ko toppante passé ak di xool col yaag doxin yi xolam seddul te loolu nag bokkul ci diine diine da ko ayibal kon jigéen toog néegam jaamu yàlla moo gën ci moom julli yëpp soo ko jëlee sa néeg farata mu ëpp tuyaaba nga dem ci jàkka ji ndax bari na ay mandarga yooyu gis ci sama rombu jigéen te soo ko gisee bala ngaa toog bala ngaa féex dang ko nettali. ma mm-hmm. gis nga gis nga Adja ni mu ñëwee tey gis nga colom gi ah moom kat col gi moom dafa dafa ñaagaan kee teg colom cay teg keneen teg ci wàllam muy jëw muy jëw goo xam ne day comme yomb guy law la yomul fenn. waaw ah, man de loolu li ma ciy jëkk a ma ciy jëkk a wax mooy jullit yi ñoo war a yedd seen bopp ñoo war a contrôler seen bopp ba xam ay jullit lañ piir wala ay jullit lañ ak leneen mag ñi waxoon nañ bu yàgg. ba yi xewagul ne ponkalam guddi su ko bukki dabee ci aw doxinam la da koo xool doxe yandang yandang moo xam ne kii ab ragal la la mu mu mu yoot bëgg ko songu loolu la ko mag yi tënk mu jeex tàkk jullit ñi itam ndeem nga xam ne li ñuy wax wér na nga xam ne senegal gi ñu nekk téeméer boo gis juróom-ñett juróom-ñaar fukk ba wala juróom-ñett fukk ak nangam ay jullit lañu bu ñu esegutoon duñu pexe dafi am keneen dafi samp samp am dënd mënta am waaye nag alxiyaasu billaahi tubaab yi nax nañu wala wala ñoo nangu ko ñu nax ba suñ pañetum àdduna gënal ñu suñu diine ji na fi nekk ni boo fi tuddee ñaari docteur ñetti docteur lu ne waaye daal tënkuñ ci lislaam te lëggeel seen diine ji moo tax ñuy wane ak mbaax te baaxuñu de ordonnance yu yomb yeeg yërmande yi wan jaboot yéeg yëpp ñoom seen message la ñuy jàllale te am nañ am nañ ci ndam am nañ ci najaax ndaxte bu bu set nga dégg jigéen ñi di waxtaane ak même góor ñi sax ñu naan prix du kay moom ñoo ñoo gën a baax ay résultat gëmuñ yonente sallallahu alayhi wasallam ak yeneen école yi ngeen xam te man xaw ko waaye julli seen bopp ñoo ñooy leen tagg e kooku koy ñoom njàng njàng bu baax lañu dañuy jàngal dañuy am ay résultats yu baax léegi nag ku bëgg am ndam ci ci pegg sa ay ay nit foog nga def lu ñu defut loolu moo tax ma tubaab jigéen di dugg ci àll bi war war seen oto yi di def kaas tout le pateek ah nangam di ci séddale ay ceeb ak diwlin fa nawet bi gën a méttee nga xam ne ñëpp dañuy sonn ñu dem ci benn case de santé def fa lañ fay def ñëpp di leen tagg ñaata ñaata nit ñoo bàyyeekoo ci diine jooju diine islam ji dem wu ji leen di leen tagg ñaari ñaari docteur bu ñu bokkee nga xam leen kii di ab julit ni yow kenn lu mu doon waaye nekkul ci diine islam soo ko taggee rek xas nga sa bopp yow te loolu man yàgg naa di ko wax case de tout le tout dañuy dañuy jàllale ñoom seen message bëgg nañu dañoo dañoo baax ñoom dañoo baax dañoo laabiir di laabiiruñu seen diina la ñuy liggéeyal wala lu ñuy def ci xeetu mbaax ñu di leen naw jullit ñee ko waroon def échec bi ñu nag loolu lañ loolu lañ xam ñoom maanaam sa noon bu la bëggee eh, jekku day gëstu ba xam sa point de feebal mm. jullit yi nag liñ liñ manqué mooy force ak kattan dimbalante ñoom na ñu jël loolu di ko liggéeyee nga foog ne dañoo baax fekk ñoom seen diine la ñuy liggéeyal tey ñaata doomi jullit ñoom la ñoom la lislaam ngénte si buntu jàkka yi jox leen turi Muhammad turi Ibrahim ñoo nekk si ndax yërmande ji waa wàjjur yi déclaré ne ñoom dañoo am yërëm yërmande boo demee buñ la seen dañ lay gàttandu dañ lay ak yiir nu gën a jekkee bu dee jigéen ñu nangu doom ji tax ci seen dënn napp nappal jox leen ay meew jox leen ay ceeb jox ay suukar ak diwlin yëpp ci biir nawet bi nga xam ne yëpp am na soxla nañ dimbal ci lañ koy def seen diine la ñuy liggéeyal loolu jullit ñoo ci war na yem ñoo ci war ñoo ci war na man ñëpp ndax laa biir ak dimbalante gi lislaam santaane jullit ñi ñoo ko moom ni ni organiser ñoom seen seen liggéey bi ba di ci tabax ay quatre nu ko nu mu tudd quatre tout le petit ay école ak loolu ñu ko liggéey ci seen xaalis boobu xaalis boobu ci jullit ñi la bàyyi ko mm-hmm. jullit ñee ko ñi organisé seen bopp di génne asaka nañ ko war a génnee dajale ko ci foo xam ne dana ñoŋ di seet luñ ci mën a def ñu def ko ci bu jàkk soxlaa ci kon ñu def ko ci ci alal te xaj na ci xaj na ci de loolu mooy baytimaal ci lislaam bu jigéen bu jigéen bu jigéen tolloo diggante te amul doole wala borom ko amul doole ñu dem ci bayti maal tibb ci jox ko lu mu fajoo ba xolam sedd dimbalante boobu amoon ci lislaam kon alhamdulilah tumuranke yu bëree bëri dana wàññeeku kon nag bu ñu essayé ba nga xam ne ab kër yéefar day taxaw fële làq diineem di ko kulóor di ko rafetal yëmut ca loola am fiitu dal ci yonent bi sallallahu alayhi ak jëm ak nam tedde woon ak nam mel di ko ayibal ci xeeti mbind ak lu kenn xamul nag jullit yi war na mel ci bennoo buñ ko buñ ko kenn du leen yab kenn kenn du leen yab bay xas seen ab yonent waaye mahal asaf dañuy dañuy seen yéene waaye ci échec lañuy mujj ci échec lañuy mujj de mënuñoo am ndam mukk ndax yàllaa ko déclaré yuriduuna an yutfiu nuurallaahi bi afwaahihim am na fu mu wax wala wa yaaballaahu illaa yutiinahu hmm? bu ñu bu ñu defee seen force bu fa ne tey tey ñu am ndam yàlla échec leen échec loo leen yëkkati islaam diine islaam xas na taxaw te ku ci ku ci bëgg a ñaaw da nga ciy yàqoo ndax mooy dëgg inna diina hindallaahi l islaam te alxaqu yaalu wala yula alayhi lu yàgg-yàgg dëgg yi kaw moo tax ku yàlla dimbale ba nga nekk ci dëgg rek bo ci wéetee yow dong ci àndeek mboole yaay ko wéet ko waaye bu dee ne yow dong sa kër nga jàpp ci alxuraan ak sunna di ci def la nga man di sell te yàlla tax yàgg-yàgg yaa ànd mbooloo ndax ñu baax ñëpp dañ la fekk si diine islaam mii ku bëgg ak ku bañ taalam bi xas na takk te yàllaa koy yor moo koy suuxat moo koy toppatoo dama doon wax toujours ne ñoom ñii bëgg fay taal lislaam ne dañ koy fay am na ñu ay gémmiñ ëpp leen coono ci nañuy nañuy ëffee pour bëgg mu fay waaye yàlla ne man maa bañ dune maa ko xas taal te du fayati mukk moo tax ma mag ñi bokkoon na seeni wax taal bu yàlla taal sànni ci ak matt moo gën fay ko boo sànni ak dana tàkk boo sànni woon dana tàkk boo amee yéene fay ko itam da doo foo jaar da gën a échec du sotti mukk kon noonu lislaam yi duñ fi mat a jóg te noonu yii songu lislaam ñoo gën a niiw doole ñoo gën a ñàkk pas-pas ña ko songoon ci jamono yonent sallallahu alayhi ndax ñii dañ leen di dañ leen di lexal ku kuy lexal ba nga re regg na wala nga yaakaar ne regg nga ki la doon lexal fokk da wax lu ko lu ko neex jii ma def dàq ngërëm ci am ba yàlla waxee loolu ba léegi wax jooju de gën a kawe waaye du dellu gën a mukk wallaahu mutimmu nuurihi mu teg ci sax lu gën a lu gën a neex si jullit ñi te gën a toroxal yéefar yi walaw karihal musrikuuna yàlla dana metti mottali taalu lislaam bii yàlla dana ko mottali ba mu àgg fu ne wala karihal musriku donte yéefari loolu neexu leen mooy dagg seen xol yi loolooy am moo tax ba léegi jihaad ba ñuy jihaad alal ji nangoo ci yéefar yi bu ñu leen gañee boroom xam-xam yi dañoo wax ne alal jooju buñ ko nangoo buñ ko nangoo ci ñoom seen wax ak yéeg seen magasin yi jal ko ci seen ëtt ba ñuy xool yemuñ ci bu xeex bi riggalee ba nga xam ne kenn ku ne toltal nga dara ñu séddoo ko ci seen penc yi kenn kenn ku ne si ñoom xool li nga moom te mënatoo jot lislaam a ko digle ñu séddoo ko ci seen biir seen ëtt seen ëtt yi looloo gën a neex yàlla moo gën a naqar yëfër yi moo gën a mucc ci am xaaraan na ko ni ko mag ñu daan jàngale ndax dara gënt toj xool dara gën sa xëttu xol sa alal ji nga moom ñu nang ko ci sa kër yi dal ko ci sa at bi sedd seddale ko ci at bi dem ak dem jooju dara gën koo metti waaye de maa maa ngi yaakaar ne amuñu kattanal oote waaye ñi ñuy lool ak ñu mel ni ñoom sax te xëy na yëguñ yëguñ ni ñu ngi def jotaay bi yaakaar naa ne man de sañ na maa waxtaan ñoom na soxna yi bàyyi ko tabango yi nara dellu ci guddi gi te ay jigéen lañ yàlla na yàlla dimbali leen oote wuñu waaye luñ luñ yëngal luñ dégg mi ngi yëngu ci daara ji ñu bàyyi seen yitte xuusu guddi gi ñëw ànd ko noonu yàlla na yàlla teral leen yàlla na yàlla teral leen ci teraanga lislaam yàlla may leen sutura yéen ak seeni njaboot ak suñu njaboot ñu ñëpp ñun làmm mooma laa noon sutura yàlla buñ tàggoo sutura ci saahir ak baatin seen bopp ngeen defal gaa waaye nun ngeen di sagal nag sag bu ñu ñoo ko moom ndax yéen a bàyyi seen i kër ak seeni i njaboot ñoo fekk si ñu te man de loolu laa doon jiim laytul xadar bii ngeen di coono coono bi ngeen ci daj li tax ma xalaat ko mille neuf cent soixante-quinze bi ma ñëwee si koñ boobu weer koor teru alaaji sil ma ngi fi sol dàllam topp mbedd mi ah loola moo sos laytul xadri bu mu agsi fi mu agsi ba ngeen jóg ci jot ci yéen ñi toog di di déglu ba ba koor gi soree laa wax ak taan ak alaaji Ahmed Ndiaye mii tey ne leen jul ñii ay julit lañ jaamu yàlla moo leen jarañu te seen kër yi ànd ak seen njaboot yi indi seen i lal ñu lal ci daara ji nga xam ne daara ji sax amul sàkket sàkket sax amutoon ci daara jooju kon gis naa benn naafi la ci biir téere yi naafi la boo xam ne njëriñam ëpp na naafila boobu laa bëgg bu ñu àggee ci laytul xadr yi ma naafila ko ànd ak ñoom ndax ñoom ñu jëriñu nu itam ñu jëriñu loolu moo sos laytul xadr bi kon ndaxte képp ku lay kuy dog wolof nee na kuy dog aw dog yi tax man de mën naa leen a seedal bëgg yàlla ndax ku bëgg yàlla doo bëgg daara maa ngi leen di sant maa ngi leen di gërëm yéen ñii di góorgóorlu itam di yokk mbir mi fu mu gën a fu ngeen yaakaar fa la gën a mën a rafete ngeen di ko taxaw di ko organiser yàlla yokk seen kàttan yàlla yokk ñu sutura yàlla dimbale ñu ba ñaan gi nga xam ne boo boo ci digg mbedd ñaan ko itam nit ñi dina génn ci buntu kër ne amin mooy wér am na koo xam ne sooxut jàmbatu na nga may metti waaye wér di gaa ngi ci biir xolom bi yàlla ñu yàlla may wér ci barke yonent sallallahu alayhi wasallam barke gàmmo yàlla na yàlla may barke gàmmu nañ ko nañ ko def te yàlla tax loo ci def nag baax na foo ci yemit baax na ndax mënoo koo jeexal yàlla na yàlla boole dimbale allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim salaamaaleykum wa